mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar xoolal lii sama ginnaaw tey la lan mardi 4 avril 2019 feeto indépendance tey nag combat yu mag lañ ci daan tàmm gis mais tey combat espoir lañ fi indi mais boo xoolee lamb ji Talla Ndiaye dafa mel ni combat bu Balla gay numéro 2 la wala Modou Lo la wala Eumeu Sène la wala Bombardier wala Gris wala Ama wala Siteu sax wala Boy ñaa xoolal mbooloo mi xoolal mbooloo mi gis nga raa bi jéey seen moo fi jaar Gammu Gueye Koli Faye ak yeneen combat dab daan dab daan la dab dab daan dab daan yàgg na dab daan yàlla ko yàlla may ndam barki ak arme arme bu ngeel arme arme mooy daan lakk eh, la leen wax Mor Kankan ay ah, ñun booy Dakar la ñu wax bi booy Dakar la te

armée. armée ban. bu ngéwël. armée bu ngéwël. waaw. ba daan. maa ngi ziar baax. tey tey xam lan la tey tey lu mu tombé. 4 avril. ñu koy màgg. ñu ciy sant yàlla. ni Essa Iba Mar Diop damay ñëw sànq jógee ci Rue 22 bi xool raa dem ba ca Rue ba sax laay ba banque ba lu xew tey. ak cant ñaari xale yu bëre. combat bi amul favori combat Sokh la Coly Faye de Gamou Gueye nee naa la Dieye production comme on a l'habitude de le faire li ñu am habitude di def mooy def ay combat de choc combat yi ci nekk kenn du la ko tànnal xam nga ñu ci nekk ñëpp loolu moo tax mu demee nii mu demee tey di ci sant yàlla di gërëm amateur di gërëm fans club. est-ce que est-ce que lam ji xajoon na est-ce que dina xaj fii sax laay wax. ah waaw mais niveau Iba Mar boo xoolee fu ne élément gémi mi ngi fa taxaw fi ma taxaw nii sax y'a un élément ak xam nga loolu sant yàlla la donc 4 avril fête de l'indépendance bés la ci biir bés yi te booy seet man mi wax ak yow dama ci am doom ji def anniversaire tey muy Fatou Kiné Ndiaye bésu tey la judd la am 15 ans joyeux anniversaire à ma fille ki ne Ndiaye tey bésu mbégte la tey anniversaire u Dieye la mois d' avril la ki nga xamante ni mooy Sansey parrain la tey la anniversaire am mooy tey mooy anniversaire réew mi anniversaire bi nga xam ne ci lañ moomee suñu bopp. xanaa avril bee avril bee ko daw melo. waaw mais sant yàlla xam nga Babacar tam mbir mi liggéey la rek c'est le travail qui paye ñun ñëpp benn lañu liggéey rek la ñuy def boolewuñ ci leneen bu ñu ko noppee mën a def rek ñu daal koy bàyyi wa ah? waa dugal ci biir xool xale yi Babacar. mu tëgg làmb ji waaye mu ngay lijjanti tike ya wax na dëgg taala olof ne na yenu jàpp caa gën a wóor. liiru jaan sax ci porte bi tey liiru sax ci porte bi taala Ndiaye. waa Kër Boy Dakar taala kaay kaay kaay am na lu ma gis taala waa ah, naka mu lépp jàmm waaw doo leen jóg jóg leen jóg leen jóg leen te loolu laa koy def. NCP bi yëpp waaw NCP bi waaw ñoo leen sant leen gërëm. Tmax loo koy wax. Tmax lu ma koy wax mooy mu taxaw dëggal boppam. xoolal lii qualify waa kër qualify taala eh coach Rebeuss baa ngi nii waa kër Kole ngi nii Lebu yaa ngi nii. waa Thiaroye sur Mer. lan la waaw lan la lan la lan Boy na wan seconde la lay daal. yëngatu leen. wóyuma bu dee franc franc am yooyu na koy nii. Ah. coosu daw miin na nga yëkkati ko ndaw jël tànk. bilaay walaay Boy Dakar. day nekk fi di nax gaay rek di sóob nii. Boy Dakar du su ma moom. nee na booy dañ ko ragal. su ma paree ci moom booy dañ ko ñemee ba faaw. maa ko wax aw ma lu ma ciy ragal. di leen ñaanal nag li ngeen di def na trop ko bàyyi de arbitre soufflé na nuyu nañ ñëpp tey la 4 avril 2019 Lamine tey la 4 avril. waaw comme dimanche non bés bee ni toll fête nationale la. fête nationale du mën a ñàkk waaw loolu la ñu wax mille eh 1960 ñaari ndaama ay bëree. dafa booy bambara féete droite. caatu jëf soog a nekk féete gauche. jëf soog a nekk Kër Masar a nekk. Kër yaa bëri mbokki mbër Lamine fi mu nekk nii ci lamb ji. Looro naa leen. Looro maa ngi leen di nuyu Ali Seck nga Italie Looro Looro la. ale itali nuyu naa la waa Loro maanaam looro Loro yi man. maa ngi leen koy delloo bu wér a wér Loro Loro ya ca. Papa Ndiaye ci caméra yi est-ce que nga Talla ak Papa Ndiaye. ñaari njaayeen. est-ce que seen bopp yi mu tuutee xool nga ko. bilaay man ak yow nekk ñaari sant Seck wala ñaari ñu sant. ay doomi baay lañu. samay doomi baay Seck lañ sant. yàlla xam na loolu. yàlla koy daa maandu de. mais ñaari ay yu ndaw a ndaw a ndaw nuy tuutee tuuti xale yu tuuti sax. caata waaw waaw waaye looy jàng jàng ko ca gune looy jàng doonal xale di ko def waaye caata dafa booy ba ñoo bokk nekk ba ñoo ko bokk caat mi nag Texas la jóge dafa booy bambara moom fu mu jóge non dafa jóge Texas caat jëf soog a nekk Kër Masar. Ah, njat du bëree wala eh da ngay daanu da daanu daan na eh! waaye yéen lii lan la yéen. eh Lamine Lamine lii lan la. lii xanaa Tidiane Faye. ah waaw waaw bu Lamsaar. Tidiane eh, caat def naa feer. waaw Kër Masar jëf a nekk jëf waaye Kër mooy sangu waa tënge yëpp ànd tey soow mi joowuy mu ngay sumi mbubu ma ndeysaan cey lam ee Gamou Gueye dok na ko teeñ waaw amul problème waaw ñu àndal laa bëgg ñu wax ñoom. waaw ñu la ne ah. am na ñoom ñaar ku ne am na droit wër. waaw géew gi. mais ñoom ñaari personne ngeen wax. mais ñaar ñi. waaw am na ñaar. waaw mais ñaar ñi ñuy àndal nañ bëgg wax ne ñoom ñaar nañu bàyyi mbër mi sax ñoo ndaw ci. waaw ok mbër mi bu def tuur. waaw bu ñu bu ma xante. waaw mais moom gàmmu deful dara de. deful dara de. luy coow ama neex. non gàmmu dafa dugg. am na droit dugg si géew bi. adversaire am tàncax si géew bi loolu moo indi coow li moom moo tooñ tey lan moo tax combat bi métti ñu bëri coow combat bi du yomb dégg nga booy bi li mu wax YouTube bi lépp te xaw ma ko dañoo bokk ay lébu rek mais xaw ma ko yaa may dégg caaray bi fay mbër am moom judduwul xamul mbër bi may dem géej caaray moo xaw ma ko mbaaw laa dëkk ak Tëngéej di représenté fukki pencee ñaari du ma ragal dañ ko ngemba tey dëpp dina leer yàlla na yàlla jàppale tey may nu kon daal pare ngeen. na du yomba daa am ay mag yu koy ngemba xam nañ lépp. xoolal Talla Ndiaye jëlal ma lële soo bi gis nga liñ ci def. la am tuur a tuur am tuur a ngi xaal laay seen fële gis nga xaal bi loolu ci ndaw yi bi xaal Babacar nañ dagg may ma gis nga xaal bi jël ma xaal bi taala mu ngi noonu ci diggante tànk yi Babacar nañ dagg may ma ci xaal bi nañ dagg ak soow mi fii daal xaal ndox soow bëri na fi doy na waar mbër maa lay bëggee maa ngi lay ziar ci loone oui maa ngi si jàmm bu baax combat bi lan moo tax mu bëri coow nii. combat bi waaw li tax mu bëri coow waaw combat bu mag la moo tax mu bëri coow sa diggante Coly lan la. non ma sama diggante waa Coly Faye jàmm la rek mais xam nga rek làmb la daal waaw. pare nga fi nekk nii. waaw instant bi pare naa waaw. damay day gaaw wala day yéex. non damay ñaan yàlla ma yàlla may ndam rek. waaw yàlla ma yàlla may ndam yàlla ma yàlla suturaal waaw. mbaa xam nga ni yéen a bokk senegal waaw ñoo a Sénégal waaw ñoo bokk Sénégal ñoo bokk lépp kañ waaw mais làmb ji nag moo boole waaw. bu jeexee rek jeex. waaw bu jeexee na damay may ndam si si barka Mouhamed waaw merci Babacar. dëgg waa dab yow da ngay bëri si wala. waaw waaw waaw dama ñëw. nii ngay bëri waaw nii laay bëri see nii laa mës a bëri see. waaw du ma ci yokk du ma ci waaj. na di. waaw après du simple. waaw si biti la simple rek. Ah, ma jël ko. Macha jël na ko. waaye Ndiaga Or bañ na. ay Ndiaga Or. Ndiaga Or ak Macha. ah boo sàgganee day. Macha mi du Macha mi ma xamam. moom écrit waalo. ee eh, màcce kon ni la moom jiy wax nga dëgg xaleb jiy baa ngi jiyee patron jox la combat boo fi daanoo am problème de bu doo liggéeyi de kon boo li boo daanee day boo daanoo day màcca jiy indi lay jafe-jafe moom di la fay salaire fay la nga bëre daana la war waaw. yenn ay ay ay Cristiano ay Drogba ak yooyu. waaw ñun de bu dee sunu cosaan sunu cosaan lambi réew mi faga un ngi fi faga deux ngi fi. waaw amoon na faas. Njugatin yal na ko yàlla yërëm Fallaye Balde am na yal na ko yàlla yërëm ay Douba ay maam góor gi Ndiaye mbay Guèye yaa ma gën a xam ay Mohamed Ali Manga de Moustapha Guèye ah gisaguma ko yaakaar naa de Ali numéro 2 bu ko bu wane boppam te daa war am. lamb ji dafa waroon a jeex waaye dañoo tax Mathieu mbëru lebu ndoy la. ah ah Mathieu mbëru lebu la. moog lebu ñoo bokk koñ Mathieu. eh mbërëm Talla Ndiaye la kon Mathieu. mbërëm jabar jala yow kay ku ku lebu faral nga farak moom lebu rek nga nopp da koy da koy jox ticket grand théâtre de. dugal ko ba mu toog Talla nopp lebu waaye lebu nag daa doy waar de lebu rek eh lebu. taala taala doo am ñaareel Lamine leboo tax wala koy wutal ñaareel. damaa ah, wutal ah taala kay moo bëggal boppam ñaareel <laughs> ah taala taala da ngay ñaareel ah, da ñaareel ta ah yëngal bopp kay waxuma ko waaye ma ca bëreel waaye Lamine xam nga ne jag sa mu ngi adressé Senghor ak 1 million. cey Lamine maa nam Reug Reug ci bërëb. man Iba Mar gi waaw waaw. waaye le sept nañ ko am le le sept du di raay. yëkkati nañu Macha dañuy daan Macha Macha dañ lay daan Macha lank naa ka kandaare bañ na waay Macha bañ na. mbaram jéy ma wàcc bañ na. Eh, la mu eh laa ilaha illallah Macha war mbërëm jiy seen ma eh mbërëm lebu ndooy ma Macha mbërëm lebu ndooy ma waay njaga oro tër njaga daa bëgg a daw njaga foo njaga jàpp na ca eh waay nga eh waay jeex daan nañu ko luy xew ay waay lii. daan na ko eh Macha war Macha wër na ko Macha wër na ko Macha wër na ko xanaa jeex tay Macha wër na Ndiaga or waaye Ndiaga mbaa doo doon tey përëm eh Macha ak Ndiaga Macha ak eh, dawal mu bañ jeexagul jeexagul door mu koy door ay waay Ndiaga or Ndiaga mbaa nekkati nga or Ndiaga mbaa doo doon lu dul or. ee njaga tër na ay njaga arbi ba sukk na taala njaay xool na arbi ba sukkee ee daan nañu ee macca daan na ko wër daan ee njaga or njaga nekkatul or taala njaay kaay Lamine général Kayre général Kayre mu nga bokk écrit daara ji. waaw. kon na jàng. Caaroy sur daara ji de ko fa bokk war ngay jàng. nafar ba mu baax. ñu ngay lewaatoo. général Raan Diop. général ndax da ngay def yëfi général. war a Raan Diop da koy bañ loolu mu ko bëgg a def. lewaatoo ñaari fausse garde. ne jàkk di xoolante loxo yay laalante ca kaw déplacement tuuti taxaw xool général di yokk avancé tànkam tuuti Iran ci tuuti ci ginnaaw ñëwaat na delloo na ko à zéro sampuwaat na lamb ji kay déggoo li ma wax tey daa saf sap. waa ji risque dëgg la def tey jii. 4 avril bi kay beneen affaire la moom. bu faas waaw mu nga toog. seen naa fi rëg-rëg. rëg-rëg nee naa ko gars waaw tey moom daa waaw tey ku ko koj waaw. wax na dëgg lamb buñ la séentoo ci fit da ngay fital lamin. lamb baaxoo noonu. tout droit wuuru ci. des nga dem gauche. ran yaag général ran général bañ général bañ na génn ko ran Diop sa ngemb lii ndax baax na ran sa ngemb sol na ko de wala génne na loxo ba fu mu bëgg a def fàq bipp daw ak moom sol ah ran li nga bëgg a def général moytul loolu raana ngi bëgg a bëre sa kaw de dalay daan waa dalay wër way wër buddi buddi duur ci waaw doole xale caaroy ba ee raan jóob raan jóob raan defal na général kayre affaire raana ngay fecc général xadaañu na ca sa benn lan mais problème bi ma gis tey mu mel ni yéen ñaar daa am na seen diggante yàgg gàmmu gi. non gàmmu gi sama mbokk sama gaal la du dara laamu ji la rek am problème amul looy. moom nee na daan lay def quoi daan. waaw man tamit daan laay def man tamit kon ñaari daan lay def mais man maa am daan bu njëkk bi. xam nga fi nga jóge ak fi ma jëm. foo jëm. si kaw gàmmu loo koy def. jaar jàll. est-ce que dina yomb. incha allah si ah, ñaan suñu borom de. li nga fecc tey yaako ko tey. kon rek. fi baa ngi fecc sax. loo feccaat fàttali ma ko sax. ma ni ma li nga feccoon. góor day dëgër. waaw laa fecc non. macha allah ko gendarme sama laam. non non. seen saye ngooŋu ndeysaan. seen saye karateka yi. lii xel nangu na ko taala. ànd ak Sidi Jaxate borom Thiès. eh seen say ñëw na. Taala Ndiaye seen saye karateka yi. xool lu ne di taala couple bi jëlal lii taala jëlal lii ah, doy na waar karaate kaa yette kaa lamit taala maamaa ngi ci gerte gi maama gerte la yëy mbër muy yëy gerte mbër muy yëy gerte maama gerte gi jëlal si ne da nga bàyyi ma gerte gi gerte gi fu ñu ko bayee bawal yow maama yow ku doy waar nga yow foo dëkk ci bawal maama loolu lañ ciy waxaat lambaay lambaay. maama adversaire yu Jokkel. waaw maa ngi nii. ñaari Baye Fall. waaw ñaari Baye Fall. ndeysaan dëgg la lu leer ngay wax. xanaa dóor yu dóore lay war a doon. non moom mënu ma koo dóor. ndax dafa may xeeñ Baye Fall. dara ma ñaan yàlla yàlla yàlla may dem ci kawam. loolu kese. à suivre. yee fay naa la. tey day tarkindaay dañoo ah tey waaw tey tey tarkindaa bu ñuul bi mooy bëre waaw. loo ko yebe waaw xanaa fulla fayda rek. bilaahi fulla fayda moom nañ ko yebe di nga ñaanal suñu borom may ko ndam. mais gis nga ki muy bëreel gàmmu gay waaw gàmmu gis nañ ko mbër la ku mbër yëpp champion la xeebuñu ko benn yoon xam nañ ne champion la boo tax kuli wax nañ ko mu teey mu def fulla def fayda yàlla suñu borom may ko ndam loolu la ñuy ñaan yàlla. lan moo nekk seen diggante fay ba gis tey yéen ñëpp kenn benn mbër desul caaro yi lamsaar yéen ñëpp ngeen ñëw lu ne seen diggante ak Coly Faye ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp dañoo bokk nday bokk baay di jàppandoor di dóorandoor nekk suñu xarit nekk suñu doomu nday nekk suñu kenn wàll ñooy defandoor lépp aussi tamit ñu nuyu suñu grand frère yi ñu àndal Michael ay ñoom fëgal ak suñu xarit yi ana papa ana papa Sow non papa papa xam na ma ngi këram yaa papa Sow la 14 fii ah yaa ak Papa Sow la 14 la fii rendez bi. waaw Papa moom Papa moom ku ne am na fierté bu rek moom. yee man Papa am naa fierté bu rek moom saa ñu rek pare naa waaw jaajëf merci. <laughs> naa la. maa la raw gaayan Babs. tey de yéen ñëpp a génn. waaw qualifié rek. koo xamul noo koy def nu mu la defa tax. suñu rakk la nekk suñu xarit yaru loo ko digal mu def xam nga moo tax ñu koy ñaanal ndam lu sedd guy bu dul yàgg ci kàttanu yàlla donc ki muy bëreel xale la ni moom. champion la mais ñu koy ñaanal ndam Coly rakk ju baax la def nañ li am yëpp pour bés bi di ko ñaanal ndam parce que soxla nañ ko quoi trop. jaajëf ana double moteur. double moteur daa mel ni séen naa ko ci stade bi de. seen diggante xanaa na naa métti de. non du métti. lu tax moteur bu amul buusi du tàkk. buusi ba laay rocc. dama koy rocc. est-ce dina ko nangu. nangu ñaaka nangu dama koy rocc. buusi ay ay dooleeg yooyu du ko rocc. bopp koy rocc. nee dañ ko jël sequma ak moom wax nee naa la ba tay combat jëlal ko sa bopp moo gën a wóor ñu la koy jëlloo man maa ko jëlal sam bopp waaw te ñi ko ko jëlloo ñëpp duñ dugg ci géew bi waaw. Assane Ndiaye na gaaw ci date bi lii wax looloo gën. Talla Ndiaye combat ngi bu jar a jàpp. Boy Dakar Bambara ak T-Max eh dóor na ko Boy Dakar ñam na. Boy Dakar T-Max Grand Yoff mbooloo. moo waaw bu tey max moo def ngemb rouge blanc bi féete gauche tey max féete droite wala boog booy Dakar a droite tey max gauche ñu ngay lewaatoo damantay baaram combat bu technique mën na fee am fii ñam na ko ñaari waane yu bëre kat booy Dakar mi dama koo seetaan ba pat mu bëree ak Zal Baol bëri bu metti terrain dafa dëgër këng booy Dakar mi tey max nag moom.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 maa ngi koy dégg sëñ Mbacke Mbacke maa ngi koy bëggee. wala ma nenne. nenne borom kéwél gi. xoolal moom wax kan daa perroquet Xaadim Seck ñam. lu la lu moom kay bu neexee sax nga ne monaat. e eh, dóor dóor dóor na jël ko e da ngay T-Max da ngay daanu da lay buddi da lay buddi da lay buddi la eh, daan na ko jël bu rëy daan ba toog ci kawam. Sensei Alioune Sarr ñu ngi lay ziar. bi mooy Leewtoo TV maa ngi leen di ziar. waaw yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. Euh, tey ñu tuddee la bésu làmb jox la drapeau mu tombé 4 avril feetu indépendance loolu yaakaar naa noo koy dundee. wax nga wax ji ñu tuddee ma drapeau. ci date symbole Sénégal mooy bés bi Sénégal moomee boppam mooy fête de l'indépendance donc euh, yëg-yëg bi ma ci am euh, gémmiñ mënu ko wax làmmiñ mënu ko wax ndax nekk na loo xam ne lii mbégte bu mag la ci man euh, di leen ti ndokkeel yéen waa presse bi yëpp ah ndax seen bés la di bésu suma famille suma rakk laa toogal nii alors mu représenté suma famille yëpp sumay élèves ñëw nañ fi ay karatéka ñëpp a ngi fii donc euh, sant yàlla euh, gërëm leen yal na yàlla aar Sénégal yal na yàlla aar làmb ji nga xam ni moom lañ moomal suñu bopp jërë geen jëf. ah maa ngi leen di fay di di di félicité di nuyu suma xarit Pape Thialis di ko félicité ci li muy def ci population sénégalaise bi mais ak ndam lu rëy li mu am ci élection yi nag nag aussi dégg la doon suivre. <laughs> mu mel ni la set. am na looy def cees waaw balay loolu tey indépendance bi dama ciy félicité vraiment bépp sénégalais mais surtout di nuyu di gërëm aussi son excellence le président mag Sall wante di waxaat nag bisu tey bii nga xam ne damaa ñëw fii. te kii nga xam ne mooy Dieye production di suma xarit di suma doomu ndey invité ñu ci bisam bu mag bi nga xam ne tey dama fekk si Abdoulaye Ndiaye ñuy kenn ci man chaque fois mooy organiser Thiès ñoom ñëpp dañuy ñëw looloo waral fi ñu tuddee bis aussi suñu xarit sañse mi nga xam ne kenn la ci ñun vraiment lépp lu ñu nekk sooba mu ànd ak njabootam gi yëpp ànd ak sëram ànd ak ay doomam ànd ak waa këram vraiment mu doon bis soo xam ne bi su màgg la si di jaxate production nag di préparé dimanche 7 avril à Thiès gala de bu mag a mag a mag d'ailleurs maa ngi ciy invité sama xarit Pape Kelis wax donc 2 millions lañ teg pour vraiment mu doon bëri simple bu mag a mag a mag inscription yi 10 15 euh, heures ba Liwi Coor eh Liwi na ko Liwi Coor ko booy bañ na Liwi Coor bu faas Liwi dina ko yëkkati ah du ce que lii benn la est-ce que tolloo wala est-ce que lii loo maa lan la wala lu xew jàppante ba tar na de. cër mi ci béréb simple waaw ci lañ ko gën a xame waaw moo gën jox ko cër Mohamed nee na na ko jox cër. wax na dëgg mu ngay dóor. waaye li jàpp lañ wër de. booy ak liwi liwi ak booy liwi coor numéro la Fass ee eh, ñu ngi koy ñam ca faar ya ñu ngay ñam liwi coor ca faar ya aa liwi coor mel ni li nga dal nooyul de nooyul nepp de li nga dal nooyul nepp de. li bi cooro ngeen lu vert li ndeysaan. eh laa ilaha illallah war nañu li bi cooro ndombo. laa ilaha illallah li bi cooro nga problème. eh eh waaye lii lan la nii. waaye yéen Linguichor lu mu def nii. wettuma lu mu def nii. wettuma Babacar. mu def nii. wettuma Babacar. waaye Lamine xanaa lii mooy kaay ma may la. lii nag moom avance koy bëre. kaay ma may la kaay ma may la avance koy bëre ma. Bruce li sama xel dem na ci moom. ak li Rock Malax. ñoo koy bëre. eh Rock Malax ilaaha illallah Talla Ndiaye. Linguichor jógal. Mor maa ngi lay bëggee. su doon na yaa ngi si jàmm. waaw oh, jàmm booba. bëre bi bëre bi yow yaa ko may wër lu xew non dama am rek dama dama dama jum rek. mu jaar sama est-ce que tey mu wër la ndombo. non tey ma ko de. prise bi nga def nu mu tudd. boo may taw naat. est-ce que mas ngaa daanu. man de mosuma daanu. foo jëm. waaye dama bëgg instant nag xool sama combat bi jëlee ko cinq personnes ah. yooyu ma bëri ak ñoom. comme ñan yan champion. non ay maama leneen yu nekk si kaw fii di bandi bandi ay ay rakku Tapha bi. ay Ndiaye Tine nañ ñoom ñu bëre. ci jëli bi dafa rëy. mais nga bëree rëy na de. waaw mooy loolu waaw jëli bi Moustapha Gueye moo ñu tama moo ñu koy boo may tool naat. Ah? tool naat tool naat. da nga ko talone. waaw na ko def. tool naat tool a Sadam a yor ngemb waaye Kaani a xonq de Kaani Sadam Thial Mbeer Kaani Sadam Thial na mais bari waaw waaw mënoon gën a kii ah, waaye loo ci mën a fees moom def na ko lool dëkkante bi tar na lii rafet de oh c'est beau Gamou Gueye belle image Talla Ndiaye. dama war a bëre il eh, est temps waaw boo yii ma tëkku du ma seen man du ma ba man Youssou Ndour da jël sama combat ko joxee avance bi mu yóbbaale man tamit nee naa leen ma joxee avance bi ma yóbbaale ko sama kër. a ah, yàggul laal. déggoo dama war a bëre il est temps ma bëre. général Malick da nga ko dëgg. ah. Bébé Diène waaw mi ngi may tëkku déggoo li ma la bal combat la Pape Ndoye Youssou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 man du ma mbër boo xam ne dañ koy tëgg muy taxaw di seetaan. yan booy ñoo lay ruube. booy yi teg fii xaw ma ay booy Pam Doy leen dama leen a soxla. yàgg Pam Doy yàgg Pam du combat. xaw ma Lagros laa soxla barki Seydouna Mohamed. Lagros diwsul. Lagros yàlla xam na ne xajuma ci kawam jamono ji lu leer laa la wax. Babacar Malika yëmbal benn bara Kër Massar dañoo nekk sama ginnaaw. allo. muy daw mu am nu mu demee. yow leer na la maa doon def action. is yaa ngi dégg kon pour wàllu ni man ragaluma loolu. su ma namee ragal lool rek woo samay mbokk dem xooli leneen. mais Pape Ndoye moom bokkul ci say plan. du ma moromam Pape Ndoye kese bu desoon ci làmb moom nañ ma jox magam Lac Rose laa soxla. waaw Lac Rose. général ngi. Lac Rose laa soxla. Baara Ndiaye ngi nii toog Baara Ndiaye. fii combat am deux ñu ñuy tëgg suñu combat muy wër lu nooy dem ba tey moo waral coow li ñëw. lii rafet na de. oh c'est beau. Gamou Gueye ça c'est beau. belle image Talla Ndiaye. mais jëy 4 sa weer la avril ah nga tëgg ci làmb tey mu mel nii bésu indépendance en tant que jeune wax loolu leer na dama ko doon reewee dafa bokkoon sama àdduna nag 4 avril parce que dama judd dama judd premier avril 4 avril am kon moo tax 4 avril dama koy honoré euh, nee naa ñi ma bokkal xam nañ ma ci avril ku rek xam na ma ci avril chaque jour mbégte lay doon ba keroog weer waaw. léegi bii bu jeexee foo jëm. le 22 avril. la. fii ci stade Iba Mar Diop. kan ak kan laati. ah Mbaye Dame Sène. Dame Sène borom taajul beneen paquet. ak bébé Julde. bébé Julde mel na ma ma xam. billaay wallaahi. tey jéeg. mais lépp yéen la rek. man daa xamal lu ma war. xam nga lu ma war. sant Sénégalais yi dara waruma. maa ngi sant Sénégalais yi di balu ñëpp ak. gis naa promoteur yëpp teew tey. xam nga looloo leen war. seen mag laa ñu ñu ëpp seen mag laa nañ ma jox cër bi rek ñoom ñëpp samay waay lañ ñoom ñëpp a baax nee naa la dama cee bari xarit man nag ku xamul noo may def dama la def a tax ñëpp laa jox cër ñëpp laa defal li li war nañ ma ko delloo te delloo nañ ma koy itam oo ma kenn xaar ma yàlla sant yàlla rek. yàlla na jàmm yàlla mooy yàgg. waaw groupe. Talla Ndiaye bésu 4 avril la jaawale laay bañ. Talla Mbaye doo jaawale ndeysaan tey la 4 avril 2019 Lamine 2019. gars yi défilé nañ ci bëccëg. ñuy nuyu suñu mbokk yi. militaires yi génn nañ. paramilitaires yi. policiers yi génn nañ. sapeur pompier yi. gendarmerie gendarmerie yi génn nañ. et yi Lamine. yow sax génn nga ndax yaa ngi ko eh, maar Diop. mënuma bañ a défilé Lamine dañ cee bokk. foog ñu défilé. waaye le CMK le général Cheikh Gueye. moo yilif armée bi. moo wóor ñu koy nuyu. ziar nañ ko chef. di nuyu Augustin Tine ministre des forces armées. ko. et officiers yi sous officiers yi. di nuyu ministère président Macky du la def ministre de justice. ah Lamine déet loolu day diis. wala nga wala communication. wala communication gën a wóor. baax na baax na. waaw religion baax waaye arbitre ba ngay laajte Lamine xool ko. eh borom lumière bi arbitre soufflé borom lumière bi lamb ji lu nga fiy gis. Coly Faye go ko jàppante Madou bu mu rocce lay door laa ilaaha illallah ñu ngay xeex. bu leen jaawale lii eh, Coly Faye Coly Faye jël nañu Coly Faye dañ lay daan Coly Coly bañ na laa ilaha illallah Coly Faye génn na foofu eh, ñu ngay dóorante ca suuf jaawale laay bañ tey la 4 avril jéey borom 4 avril nee na le premier avril la juddu jéey seen say 4 borom avril kon làmb ji tey avril yi neen la e Fatou Kiné doomi Abdoulaye Ndiaye moom itam nañ 4 avril la juddu kon daal avril bi ala daw mena waaye ñaari mbër jàppoon nañu waaye 13 avril Assane Ndiaye production ambulance bu Thiès wulli dee bu bawal ndaw lu tarte metti waaye eh Jamaïcain borom la 14 moom tamit du yomb laa ilaaha illallah laay Pythagore la 13 Assane Ndiaye eh bu Thiès wulli dee bu bawal lu doy doy waar maanaam ma niroo bëree. waaye cay ambulance. ambulance moo gaaw bëree. na doole ba. laay ah lay lay la waaw loolooy combat. combat bu rëy ba ngoon ca bés ba. ex explosé ak général Diouf. Euh, général Diouf bu mbuur lu doy waar. explosé dafa tin bu école de lisa ko xam-xam la mujj a daan ca la mujj a bëree fii jënd bu rëy. général Diouf fii bi mu fiy dañ koo daan par décision arbitrale. exil booy Balde Babacar. laa ilaaha illallaah drapeau Ablaye Loobu Loobu Sëbi Xotaan. ndengeñ bu sax ndengeñ bu sax a sax a sax ee jaawale wuurul ñu nga ca ñaari mbër yi a ndengeñ moo fi gën a metti ci put lañ la koy def laa ilaaha illallah ser su jom nuyu naa la sama xarit sama doomu ndey sama rak l'international Youssou Ndoye ee duma la fàtte borom France atena toppal ma loolu Talla Ndiaye wax naa ñoom lu xew lu xew lu xew lu tax nga àttee soufflé na lu tax mu àttee laa ilaaha illallah door na ko mu daw jëli ko da koo laaw góos door na ko droite yee percule ba dal na Coly Faye moyul loolu wër jël na toog na toog na toog na laa ilaaha na ko mu duurati ko daan ba tab waaye lii lan la laa ilaaha laay xeex bi xeex bi Talla Ndiaye ñu ngi dóor Coly Faye ñu ngi bëri ba léegi waa lii yee kii dinañ ko rey dinañ rey kii dinañ rey kii eh dinañ eh, ko rey Talla Ndiaye eh doy na war waa Lamine Tito kii dinañ ko rey génn reculé foofu liñ ko dóor dafa dal bi mu ñëwaatee bëgg a def xam na ne boobu jël na coup aha waaw bilaay waaw xoolal ma lébu yi moom man keneen ku dul kilifa yi gàmm dafa daanu ana balance moo doon mu jël ko du moroomam barki Seydina léegi fan la jëm da ko duma daan ka barki fan la jëm ku fa des wax ma ñu génn ko ku fa des ñu génn ko. wax ñu ko nes nes na ñëw bëre gàmmu gëj. Eh, dam na barki sëñ boo leen gàmmu daanu ana balaas. soo ko jël du ma doon boo ko mën suuf woo duma daan ka da ngaa mën. ay doomi Tëngéej lan Tëngéej lan dëkk Tëngéej ragal dëkku fa barki Seydina Mohamed et eh, nous si talan soxla si talan soxla pour mu neex eh dañuy doog a débuté de lii lu ndaw la lii lu ndaw la. lébu yaa dëkku fa. lébu lébu pire. booy yoo tooy. waa xoolal yooyu. yéen a ngi dem xool jëloon waaye moom. booy bi nekk si laama yi bëri wax. bëri wax baaxul. boo waatee combat yàlla na yàlla may defet. booy bi saaga waa Tëngéej tooñ waa Tëngéej. saaga ñu xas ñu. booy ñun gënoo ñu ndey gënoo ñu xas gënoo ñu nekk ñun dañuy joow di lekk dugub di lekk jën. ñu boo ñu tamul xool boo waaye bu ñu la tamul doo ñu tam sëñ bi dama bëgg nga yaru xale day yaru dégg nga daan bi jeex. Talla Ndiaye Talla tey la 4 avril Talla défilé nañ ba pare Talla Ndiaye ñëw nañ stade bi Iba Mar Diop Talla Ndiaye jëye fi woowoon drapeau seen say yaat ma loo yaat ma wala seen say boog Alioune Sarr ak ki nga xam ne nii moo doon saa neex yaa ngi dégg. bëre nañu xeex nañu gàmm daan na ko lii mooy lamb nañu bàyyi xel xale yi tënkee ji ñu ngi wane seen bopp. ah waaye xoolal lii